تندقلو الخليف مولانا الشيخ أحمد التجاني شيخ إبراهيم نياس خليف جنرال دلا فايدة تجانية الإمام شيخ أحمد تجاني علي سيسي إمام راتب بمدينة الشيخ إبراهيم نياس شيخ محمد الأمين شيخ إبراهيم نياس ريبريزنتان خليف بي تندكارو groupement départemental Ansar Din bu Dakar ñu and ak mbekté di leen yëgal anniversaire Maulana Cheikh Al Islam Al Hajj Ibrahim décembre 2019 qui terrain ACAPES bu Parcelles Assainies unité 20 conférence bi nag ki ko fas à di Cheikh el Mahi Seydi Ali Cissé di porte-parole de la Hadra ci teewaayu Cheikh Mouhamed El Amin Cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci Ndakaaru Cheikh Mouhamed Mounhamid na Cheikh Ibrahim Niass président fédération Jam'iyatu Ansaruddin nationale dix-huit heures pile conférence bi dal di door ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé porte-parole bu fay Al-Qaïda At-Tijaniyya thème waxtaan bi du di rôle de la jeunesse dans la société taxawaayu jeunesse bi ci société bi parrain yi monsieur Serigne ministre de l'eau et de l'assainissement Seyda Ndeye Khady bintu Cheikh Ibrahim Niass Mam Ousmane Sise ancien président Ansaruddin Oustaz Omar Balenjai Ndiaye muqaddam ak Seyda Awa Cissé muqaddama groupement jamiyatu Ansaruddin département bu Dakar ànd ak mbégte di ci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 sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asxaabihi wa man walaahu wa man tabaahum bi ixsaanin ila liqaaillah ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi di ci jiital Mawlaay Sayyid al Xalifa Alxaaji euh, Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass radiyallahu anhu di nuyu tamit al imam Cheikh Ahmed Tidiane Seyd Ali Cissé kazalik noonu la ñu nuyoo. Seyd Mouhamadou Mahi Seyd Ali Cissé mi nga xamante ni moo nekk naata xoros mi waaye tamit duñ fàtte suñu sëriñ bu baax boobu di mufassirul jalil wal alim rabbani di Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass mi nga xamante ni moom moo méngoo wàllu jàng ak jàngale fii ci xadarat al ibrahimiya tey ñu ngi ànd ak suñ yaay wootu Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass mu nekk Seyda Khadija bintu Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass ñu gën koo xam ci Seyda Ndeye Khady Diaw mu bokk ci ñi nga xamante ni ñu njëkk a def gàmmu fii ci saam gi ñu xamante ni ci lañ nekk euh, ci luñ fàttaliku moom lañu xam ku ko a def waaye mën naa am am ñu ko njëkk a def loolu waaye xamuñ ko waaye daal ci liñ xam moom mooy kii nga xamante ni ci lañ fàttaliku moom lañ njëkk xam ko gàmmu fii ci saam boobu ñu ngi nekk ay xale. mu def ko diir bu yàgg it xëy na loolu bokk na ci li tax ñu tuddee ko gàmmu gële nga xamante ni wala euh, anniversaire wala confrance wala ziyaare ba nga xamante ni ñu ngi koy defal baayam ju baax jooju di Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass fële ci Dakar mu tombeek le huit bi nga xamante ni moom la ñëw mu nekk le huit décembre bi ñu nekk ni ñu bëggoon waxtaan ak moom ci euh, li nga xamante ni moom lañ ko parrainé wala ni moom lañ ko mariné mu nekk programme boobu nga xam ne ma ngi am ci Dakar fii ak ñeenti fan ci kanam Seyda ñu ngi lay nuyoo di la ziyaare di la wax dalal ak jàmm ci Fayda Tijaaniya ñu ngi sant yàlla bu baax di la delloo nuyoo di fay nuyoo di la tatagal fii ci kër gi waaw fay bu baax aleykum salaam wa rahmatullah laaj bi rek moo nekkoon lan moy kàddu yu nga xamanteni yang koy jëmele ci programme bu nga xamanteni mo nek euh, anniversaire lu Mawlana Cheikh al Islam bi nga xamanteni mi ngi am fele ci Dakar le 8 décembre bi ñu nek nga xamne bokk nga ci ñiñ ko marine alhamdulilah di ci sant yalla bu baaxa baax di ci am contente bu baaxa baax ne anniversaire bi Cheikh rahman fi mu ci ñi tuddee duma def jur kontaan ci ak sant ci ak bu baax baax maa ci kontaan bu baax tey ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm ci barkeeb ki nga xam ne moom la defal anniversaire euh, yan kàddu mooy yi nga xamante ni moom ngay jëmale ci programme bi ak euh, lan ngay fàttaliku ci li nga xamante ni mu nekk wàllu jàng ak jàngale ci sa baay Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass. waaw li ma ci fàttaliku bëri na bëriwut waaye lu ci ñëpp di fàttaliku rek ndax moom mbiram lenn la woon waaw li mu daan digle moom ci loolu la nekkoon jàngi jàngale liggéey jaamu yàlla. ci loolu la nekkoon jàng jàngale bi moom ñëpp la ci yemale woon góor ak jigéen ñoo ci bokkoon ni mu daan jàngale góor ñi noonu la daan jàngale jigéen ñi ba tax na tey ay jigéenam ay góor lañ ndax xam nañ ràññee nañ xam nañ fi ñu war a teg seen tànk xam nañ li ñu war lépp lu góor ñi di nekk ci lu baax jigéen ñi ñu ci de जंग अपना jigéen ñi su dee jàmm bu mën a baax jigéen ñi duñ nangu benn yoon góor ñu yóbbu leen te loolu nag moom rek lañ koy sant ñu koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla fayal ñu programme bi nag ñu koy waajal ñu koy waajal bu baax man ak ñi ma yàlla booleel ci Cheikh Ibrahima muy ay taalibe xam ne ñu jugee ba Gàmbi ñu ñëwee dañuy ziyaare ziyaare dañuy toog xaar ba dimanche ba ànd ak ñu jugee ci ël bi séeréer si bëri ñëw na ñoom depuis démb la ñëw sax dañuy ci kër gi ziyaare bu ñu paree dañuy xaar ba bis ñu ñu ànd dem ñu koy waajal bu baax baax baax baax a ñaan yàlla lépp lu tax ñu di ko def yal na yàlla wan ci lu kawe si njort ñi koy def itam ñu ngi leen yàlla yokk seen mën-mën yokk seeni xéwal yokk suñuy mbëggeel ci baay ba lépp loo xam ne ni jug nañ di ko ootewu ngir moom rek yàlla may ñu ci ndam te ñu ciy am ndam incha allah. yan kàddu mooy yi nga xamante ni moom nga jëmale ci ñi nga xamante ni mooy taalibe baay yi nga xamante ni war nañoo. gën a yokk yitte yi ci liggéeyal ay jëfam yi nga xamante yu baax la rawatina xale yi. sànq rek maa ci am ñu ma ciy waxa ci waaye am na ñoo xam ne. dañoo ñëwoon nekk dañoo nekk ay taalibe Baay jël tarixa ci jaam ne tarbiya nañ lañ wax te bañ ci bokk te fi mu nekk fi mu ne yàlla daf leen cee seppi mm-hmm. kon fu yàlla boole dañoo Baay dangaa war a xam li nga am dangaa war xam li nga am ndax liñ am yombut mm-hmm. yàlla baaxee nañu ba boole ñu ak sëriñ mat sëriñ tey maa ngi wax xale yi na leen ñun de am nañ sëy man nag xaw ma ndax bàyyi bëri na ay taalibe léegi walla xam naa ne am na ndax bëri na walla ndax damay wax ne taalibe bàyyi ci war a jiitu am yar am teg ñu am diine te nangoo jàpp surtout xale am yar am teg ndax doon doon doon wax ci kilifa dafa amoon nga xam ne ay ndaw lañ jël ko moom daf ko roy waaye dañ ko war a ci loolu dañ nangoo jàng tijaan moom ko nekk danaa nga xam dafa mën a nag xam dëgg am nañu yàlla yàlla kon nag ci yoonu jub li hmm. nga xam ne moom la bàyyi hmm. te fàttee ko dëkkam bii hmm. yàlla yàlla ndaw yi li nga xam ne nii ñu ngi bëgg a wàcc yoon bi yal na yàlla dugg ci seen xel bi delloo si leen ñu tegu ci yoon bi mu war a nekk suñuy mag yi ëllëg ah, te gëm naa ne sax ne loolu dana am ndax bàyyi ni mu fàttee woon fii yàlla euh, loolu moo nekkoon kàddu yi gàtt na lool waaye am na solo ndax ay ndénkaane la ak ay conseil ak ay ñaan ñu doon ci and ak Seyda euh, xam nañ ne amul jot sax wax dëgg yàlla ñu ngi ko fekk mi ngi jàpp ni waaye bàyyi na itam yëpp may ñu interview bi ñuy jox ñëpp euh, dig daje di ko ñaanal yàlla moom it yàlla yeggil ay projet yàlla yàggal ko fi may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram te di seedeel taalibe yi rek ne ci li magam yi aw rek ci la aw ñu jàng alquran ak eh, jàngale te lañ xam yaafaati xam ci sayda roqiya sayda nafisa kazalika waaye seen mag jële ci Dakar di sayda maria moom it ñëpp gis nañ ñu def ci alquran moom it seen rakk ju baax ji ci loolu la nekk di aw ci yoon boobu magam yi aw góor ñi jigéen ñi di ko yàlla yàlla yàggal ko fi may ko fan bu ak wér-gu-yaram di jox ñépp dig dajee ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam naa bala ñoo te ñu bàyyi Mouhamed Diop moom it mu sànni ci ay kàddu ndax uh, moom it uh, taalibe la ci Seyda nekk ndimbalam sëriñ bi ñu bàyyi la nga sànni ci ay kàddu. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ginnaaw sant yàlla ñu ngi tuub kàddu yi ci suñ kanam sëriñ parce que waruñ wax ci kanamam waaye ñu ngi lay xamal ne yaa ngi doon jël koo xam ne xamuñ ko ci lu dul tànk yi nga xam ne ci la bàyyam nekkoon ci luñ xam ci bañ nekk ndaw ba léegi ci luñ xam ci jabooti sëriñ bi ci ñu jigéen ba tey taarix mën naa jàpp leneen waaye ci ñun luñ xam gisuñ ku ko njëkk sos gàmm fii ci sànni mu doon gàmm boo xam ne gàmm gu mag la woon te ñun ñëpp bañ a nekk ndaw di jàng ci daara ji dañ ko daan former mu nekkoon feet boo xam ne daf daan màgg ci ñun lool te ku ko xam tamit xam ko ci maandu xam ko ci njub xam ko ci ragal yàlla dinaay wax ne moom jowut sax mu toog di la waar waaye boo toogee moom rek jëmmam rek daf lay waar parce que yal nañu yàlla jéggal ci kàddu yi sax waaye yaroo moom lañ seede ci waajuram rek moom loolu lañu seede ci moom ci yaroo ci gàttal daal mënoon am kàddu yu gën fare kaw kàddu cant ak alhamdulilah di tuub kàddu yi nga di ñaan yàlla daal yal na ko yàlla saxal ci seen kanam may ko ay at yu bëree bëri dinaay wax ne olof danaay wax yàlla yàlla may fan gudd waaye nit bu duggee ci ko sa sax benn fan fan bu dafa gudd wax ne booy ñaanal nit da wax yàlla na ko yàlla may mu dund ay at yu bëree bëri bu ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may mu dund at yu bëree bëri mm-hmm. bépp ay mébétam yoo xam ne am na ko ci dëkk baay bii ñi ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla may ko doole bu mu ko defee te yàlla may ko xol moo xam ne dafay des di ko def ba pencam yàlla di ko ñaanal daal yàlla na nekk leer ci suñ kanam dina gunge waxtu bu nekk te waxtu bu ko gisee rek ñun dañu am dollal dinaa koy wax ne buñ la déggee dañu am dollal buñ la gisee dañu am dollal te jaam bu nekk ndollal rek moom la bëgg moom la bëgg ci àdduna parce que yonent bi ba koy yàlla di jox lenn rek la ko wax mosolo koy ñaan yàlla ni yàlla doon wax lu nekk ci moom yàlla dañuy tëbb ci moom wax lu nekk di ko ñaanal yàlla yeneen ci ñun ak yeneen ci njaboot gi yëpp yàlla na ko yàlla matalal ci zaar matal ko ci baati muhammadin mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أنا اللي ربي على لقائي أو على الخليف مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخ إبراهيم نياس خليف جنرال دلا فايدة التيجانية الإمام شيخ أحمد التيجاني علي سيسي إمام راتب بمدينة الشيخ إبراهيم نياس شيخ محمد الأمين شيخ إبراهيم نياس ريبريزنتان خليف دي تشين groupement départemental Ansaroudine bu Dakar ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal anniversaire Maulana Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahim Niass ñu jàpp ko ren dimanche le 8 décembre 2019 ci terrain ACAPES bu Parcelles Assainies unité 20 conférence bi nag ki ko fas yéene taxawee di Cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé di porte-parole de la Hadra ci teewaayu Cheikh Mouhamad al Amin Cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci Ndakaaru Cheikh Mouhamad Mounhamin na Cheikh Ibrahim Niass président fédération Jam'iyatu Ansar ad-Din nationale dix-huit heures pile conférence bi dal di door ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé porte-parole bu al Atijani. thème waxtaan bi nag rôle de la jeunesse dans la société taxawaayu jeunesse bi ci société bi parrain monsieur Serigne Mbaye ministre de l'eau et de l'assainissement Seyda Ndeye Khadijaou, Diaw Cheikh Ibrahim Nias, Mme Ousmane Sissé, ancien président Ansaruddin oustaz Omar Bale Ndiaye muqaddam ak Seyda Awa Cissé muqaddama groupement jamiyatu ansaaru diin département bu Dakar ànd ak mbégte di leen ci woo ñu koy amal dimanche le 8 décembre 2019 ca terrain ACAPES bu Parcelles Assainies unité 20 à partir de 15 heures képp ku ko dégg mooy sa oote bu ko kenn uute برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان